xam ci game bi ko ko waxtoom bul ko tardé underground over the ground fii ñëpp lay prôné na nga am talent di def lu naaj foo mënta nekk da lay jëli réel ba kanaa sa la da nga jàpp ci game bi mu jëm kanam la urbain lépp ngay am back then si graffiti rap salaam ờ, di nuyu ñëpp di nuyu képp nga xam ni bon yaa nga déglu couleur urbaine ok comme ni ma leen ko waxee woon léegi dañ jug ah ngir changer rénover Euh, def beneen style ah ok def ko style mbedd doxantu dem seet artistes yi comme ni ngeen ko seetaanee ah, comme ni ngeen ko seetaanee si publicité bi nga xam ne def naa ko si réseaux sociaux yi ah, ok noonu la euh, comme ni ma leen ko waxoon artiste bi nga xam ni moom lañ invité mi ngi tudd MC Idji Ila Rabika mi ngi dëkk Ngaye comme ni ko waxee bala ñu génn di dem feneen bon fii la ñuy commencé euh, képp ku nga xam ne artiste nga parce que bu njëkk couleur urbaine dañ xawoon yam ci purement hip hop mais léegi dañ koy gën a yaatal. dem waxtaan ak euh, artistes yi waaw comme may poser question yi moom euh, yeneen yi si nekk si ginnaaw yëpp comme maa koy def léegi je obligé euh, comme entrée bi nii nii laa mën a waxee yéen ah nii laa mën a waxee yéen wax leen sama invité kan la léegi incha allah après moom si boppam dinañu wax moom mooy kan jaar-jaaram ak léppam ah, bu ko defee fan sam yeeg ak ñi ngi xam ni dañuy seetaan Teuf Connection TV Sénégal ñu gën a xam mooy kan ah, comme ni ñu ko waxee ci dëkk bi la dëkk ah. Euh, artiste la rappeur la euh, ngaay gi la dëkk kay comme ni tey moom laa leen di présenté waaw sama euh, mbokk yi nga xam ni yéen a may si Teuf Connection TV Sénégal comme ni mu leen ko waxoon tey MC Ichi Ila Rabika moom laa invité tey ah, ci couleur urbaine version mbedd ah, comme ni mu leen ko waxoon ah looloo waral tey mu ñëw seet ko. Uh, fim deug uh, han pour meuna waxtan ak mom mais inshallah euh bon dina gëna yaatu légui mom mu wax ñu mom moy uh, kana salam ko lu goma wa ke ko buñu malaysia di siar sama wa fami di siar ke bu go xamne ni biir ngaay quoi di siir do connection ku lo te bay sama tur dëggantaan nag Moussa. comme ni ma leen ko waxee sànq mooy MC Idji euh, présenté wu na euh, léegi nag dañ bëggoon xam kan mooy MC Idji ak euh, tamit lan moo waral turu MC Idji Ila Radika. yeah MC Idji waaw kontaan ci question bi MC Idji benn boy la benn jeune bu nekk biir Ngaye Mékhé di représente hip hop Galsen taabal woon si di ci léefantu depuis jàmm gën xam nga. ñu dem ba amour bi nekk si ñun quoi ñuy représente hip hop galsen waa MC Idji bi dinaa ñëwaat pour wax lan moo koy firndeel ak fi mu jógee dëggantaan quoi MC Idji bi ci benn bureau boo xam ne may profito waale di ko ñaanal yàlla xare ko àjjana muy ma Samba xam nga moo ma nommé woon MC Idji boobu dëkkoon jàmmagal quoi ma si lan ma xamee ci wax je l'avais déjà dit mais je le redis mon nom c'est Idji dans l'élément gëstu qui e joue le tout et le pour tout, ni lui ni l'autre, ne frappe mieux que ce Idji El Arabica. Je suis la nji fi yàlla ji waaw mu koy représente di ci wax man maa di Idji maam yàlla moo ma fi ji maam jiw maam Bamba maam Samba moom laay représenté foofu mooy maas quoi. Hmm. jaajëfati. Hmm. leer na leer na euh, turu MC Idji ok léegi euh, sa jaar-jaar sa jaar-jaar si hip hop bi. ak tamit la mbolé influencé ba nga commencé def rap musique rap yeah même question bobu dina ci sawra pour ñew ci mm-hmm. parce que lima gëna marqué ci hip hop moy mm-hmm. que biñu gëna nek tout tang fi daan fi ay concert waxon na ko ben émission ni suma bëggé rap ginaaw yalla daan na déglu cheikh fay mm-hmm. bi déggon ci wétu station bi daan na ko téglu lu bari mu def ay freestyle mu neex ma lool mo mësa na dégg ni concert am na damay rëcc ñëw taxaw ci ginaaw di seetaan ma dem ba amul boobu moo ma dikkal quoi. Hmm. si laa duggee ci rap di ci liifantu nànk-nànk xam nga ba instant bi ñu toll nii quoi ñu ci bëri ñu ngi may xam quoi nànk-nànk. Hmm. ok mais bu ñu doon wax euh, MC Idji ma bi nga tàmbalee def euh, musique boobu léegi lan nga xam ni euh, moo la neex si milieu rap fii nii au niveau de Mekke en plus tam yow ban remarque nga si def. yeah tëf question boobu nice na quoi. Hmm. parce que bi ma tàmbalee représenté fii yàgg na teewee na fi ay concert daan naa fi teg ay programme boobu affaire yi demeewul nii hmm. xam nga daf fur et à ñuy dem parce que li ma yàgg di wax rek rap amour la ak passion hmm. boo ko amul doo ko def quoi bëri woon nañu fi newoon di koonawu ci rap nga ni rap lan la amour ak passion waaw mooy def rap hmm. parce que boo amul patience li ngay def de fur et à da nga koy teel a bàyyi. Mm. parce que da nga naan lii nii du ci dem wala dara parce que yoonu rap moo demee noonu quoi. Mm. il faut mu laaj benn laps ne da nga ci ne. Mm. di liifantu en même temps ngay def say gëstu nànk di dem ci concert yi que ñëw nga di boole li lay neex ak li lay naqari. xam nga de fur et à mesure bu demee ba nga xam ne kii nii li muy def opté na ko te bëgg na ko ci xolam. ok foofu la nit ñi dañ tàmbalee ñëw di la teg loxo pousse la pour nga dem ko te dinaa lancé waat beneen message. MCE ji mooy teg duggul ci rap pour bon duggul ci rap ndax di tuux duggul ci rap pour leneen mais dama ci dugg pour di lancer ay message ba ci samay biir son da nga koy déglu ay message bu am importance bu mu lancer parce que euh, majeure partie da ngay gis ñu bëri euh, buñ ne rappeur nga day am ful la classifié te léegi dem nañ ba euh, maanaam rap industrie la musique culture urbaine industrie la gis nañ ba dem nañ ba rappeurs yi di créer ay marque wala yeneen ak yeneen mais fi Sénégal Sénégal euh, lañ gis que ni culture urbaine gars yi exploité guñ ko ba léegi léegi yow lan nga gis loolu comme supposons yow rappeur nga defa nga créer sa marque sa marque euh, yéré wala yeneen ak yeneen est ce que yow projet yooyu noonu yow yaa ngi si taw comme MC Idji est ce que est ce que mi ngi dox si yooyu ok dëggantaan parce que tamit loolu dafa jot pour MC Idji am benn staff bu taxaw boo xam ni dinañ koy mën di taxaw ci yu bëri mm. parce que booy xool tëuf mm. yàlla moo ñu tiim yu ci bëri ñoo ci débourier suñ bopp mm. suñ waree def son ñun mm-hmm. ñooy dem génne suñ propre moyen dem studio fay suñ xaay def son ñëwaat toog suñ amee programme dem dóor ñëw parce que jot na tey autorités yi nga xam ne ñu ci dëkk bi di taxaw ñu jéem a jàppale jeune talent yi nga xam ni ñu ngi ci biir dëkk bi. mais nan lañ leen di jàppale. autorité yooyu nga wax nan lañ leen di jàppale. ok parce que tey jii xam nga tey jii boo nee culture la culture bi dafa yaatu xam na théâtre ci fecc denc ci la kii def rap ci la bi nga xam ne tey jii pour autorité jàppale dëgg moom mooy tey jii ñëpp booloo joxe benn loxo quoi benn loxo moom mooy force boobu union fait la force maanaam joxante xol yi quoi parce que xol yi bu naawee suuf rek dara du dem quoi man foofu laa gisee ma ni su fekkoon rappeur yeeg artiste yeeg ñoom ñëpp rek dañu booloo doon benn say yaakaar naa kenn ku ci ne rek pour ñu pousse la bi mais est ce que est ce que est ce que yéen a ngi dox si loolu au ah. niveau de Mekeng est ce que est ce que yéen a ngi dox si loolu. dëggantaan man dama faat dama part personnel man MC Idji man maa ngi dox si loolu. parce que dina ma fa ma dem door affaire bi réussir yow yaa ngi fa war doon bàyyi ma fenn ak keneen ak keneen parce que loolu la quoi parce que à part rab dafa am leneen loo xam ne day ne si sa si sa xol. Hmm. mais yow yow da nga yaakaar que ni. booloo mooy comme supposons sa moroom artiste euh, xewle wala pour yow mooy booloo wala euh, da ngeen war a euh, def benn organisation comme supposons ngeen woote benn réunion képp ku nga xam ne artiste la au niveau de Mékhé gis sa bopp ngeen créer ay carte membre ak yeneen ak yeneen. ok to foofu laay waxee quoi. parce que teg booloo bi moom mooy tey jii benn MC Idji tëgg concert woo tëf mu ñëw taxaw wala mu woo beneen rappeur mu ñëw taxaw g dem hmm. parce que loolu après maanaam tey jii booloo bi moom mooy tey jii ñu jéem a xool benn benn asos boo xam ne ñun ñëpp dañ ci dajaloo waxtaan surveiller terrain d'entente quoi ci li ñuy def bu ko jaree ñu def ay carte de membre xam nga ba kenn ku ci ne rek li ngay def nga ciy gis sa bopp daal foofu laay waxee quoi booloo bi foofu lay doolee mais nekkul ni concert day am rek euh, rappeur bu ne ñëw dóor après ñu saaw. léegi yow booloo booba booloo boobu yow noo ko yaakaaree. ni ma ko ba xam ba xam MC Idji euh, mooy dem seeti yeneen artistes wala nan nan nan nga yaakaar ni boo leen ko doxee. Euh, di ngeen booloo pour ñu mën a dajale fii nga xam ne ñu ngi def euh, rap fii ci ngaay ñun ñu jéem a def benn asos jéem a teg benn programme boo xam ni xam nga ñun ñëpp dañ ci gis suñ bopp quoi ñu ngi ciy dox ci suuf nànk nànk quoi dafa am loo xam ne nag boo ci nekkee nekkul looy souligner quoi dañ ciy dox ba mu taxaw parce que fii moom pour nga dajale gars yi moom dina yomb quoi. Hmm. maanaam bëgg-bëgg bi moom mooy des quoi yow xam nga li ma lay bu baax. Hmm. bëgg-bëgg moom mooy. mais am na benn affaire bu nga xam ni euh, jaaxal na ma euh, ci Rabou Ngaye bon gis nañ que ni am na ñu fi nekkoon am na ñu nga xam ñu ngi évoluer mais comme fi mu ne majeure partie jeune yi nga xam ne nekk nañ fi nekk nañ fi euh, gisuma benn jeune bu nga xam ni peut-être am na jeune yu génne clip mais comme supposons ay projet ay projet mixtape ak yeneen ak yeneen MC Idji génne mixtape mixtape daw Thiès national sur le plan national gis naa ko que ni fii majeure partie ñu bëri ay single rek génne yow loolu en tant que artiste mec waa rappeur. yow loolu pour yow la muy solution bi. ok parce que tamit beneen point day ñëwaat foofu quoi parce que nit dina bëgg dara tëf dina bëgg def dara mais moyens yi moom moo koy xaw a baare ku ne xam na ni def son rek benn son rek dafay dafa yombul hmm. boo nee mixtape di nga def six son ba sept son. son yu baax. mais moyen moyen moyen est-ce que yow yaay xaar moyen yi ñëw si yow. waaw wala est-ce que du yow yaay créer moyen. comme supposons tam bu fekkee ne yow da nga def option rap rek ngay def. Mm. Euh, defoo leneen lu dul rap comme supposons defoo beneen job bu lay alimenter nga bëgg a basé wu si rap bi rek est-ce du moyen bi yow yaa ko war a dem uti mais waroo xaar moyen bi. ok ok parce que loolu loolu loolu loolu dama ko yàgg dégg ci artistes yi. Mm-hmm. comprendre nga. parce que si jamono jii ñu toll nii est uti xool. ci yow li nga nekk xool nan lay gën a yaatoo ba tamit nga gis sa bopp tamit nit ñi xam que ni yaa ngi si avancé. ok foofu laay waxee quoi. Hmm. parce que tey jii boo nee artiste nga rek war nga di créer créer bi moom mooy tey jii waroo toog benn assistant te génnoo benn produit loolu moom mooy lancé artiste quoi parce que damay gis majeure partie bi fii xam nga dañuy bàyyi ba concert am rek ñu ñëw ni rappeur la play seen son après bu jeexee rap jëralu leen dara quoi tey jii boo ne woon concert am na Thiès dañuy paas ñu ngi fay gis ñuy jële fii lu bari foofu laay waxe quoi parce que affaire yi nee naa la sànq amour lay doon ak la nga xam da nga koy dugal sa biir xol di ko dund hmm. amour bi boo ko amee moom mooy à chaque fois ngay koonawu di ràññeeb say texte bu paree nga génn say propre doo ci xaar kenn dem def sa son quoi parce que ndimbal tëf hmm. da fekk loxoy borom hmm. parce que yow boo bëggee ñu dimbali la da ngay ne ci waar wi ki la naan jaajëf sa waar nekk nekk nekk si waar bi maanaam comme MC ji euh, à part bi muy def nan lay def ba génne xaalis euh, bu nga xam ne da koy alimenter pour mu dem studio ak yeneen ak yeneen. ok foofu tamit dinaa sawar pour ñëw fii. parce que am na ay temps yoo xam ni dama daan wut sama condamné lu ma am dugal ci en même temps may nekk di répéter samay son. nga xam tey jii su ma demee ba am pare naa sama benn son dinaa am benn son boo xam ne dinaa mën a dem si studio bi jox ko ko ni ko lii laa yor. toog jàpp ji dugalal ma son parce que loolu lépp ay moyen la quoi parce que booy toog rek ñaata rappeur boo leen fëggoon fii ñu yori texte yoo xam duñ jeex duñ xaaj mais li ma la wax rek amour bi boo ko amul du la jaral nga jël sa poos dem ci studio bi dugal sa son fay ci xaalis il faut nga am amour bi ba pare loolu soog a ñëw quoi. parce que yow xam nga li ma lay wax yaa nga dem studio studio bi doo ko dem di leen xool ba di kese. Hmm. il faut nga am loo yóbbu pour mën leen koo jox ñu mën la joobal son foofu laay waxee quoi maanaam lépp rek day doon bëgg-bëgg bi ci nit ki en même temps mu leer na ma tey jii mois bale la ñuy dugg war na ma def son war na maa préparer mois boobu ba accès li may privé samay son war na pare foofu laay waxe quoi beneen point bi may ñëwaate tamit dangay ngay gis ñu ci bëri dañuy nekk ci rab nii xam nga en même temps seen moyen poche du leen ko may quoi hmm. looloo waral à chaque fois ñoom buñ génnee ren bala ñoo génnaat déwén lay doon te loolu taxul mouvement je me rappelle très bien fan yee dama dem Kébémer benn festival rap ma xool imaginer par rapport ak fi ma jógee ay conteneur de rappeur ah, ñëpp biir Kébémer lañ dëkk ñëpp biir Kébémer foofu la dëkk di représenter seen temps ku yéeg keneen wàcc benn rappeur bu jege woon offside moo fa amoon muy man MCDG pour pas loolu waruñu ko war a mën a def benn festival boo xam ne tey jii fii lañ koy teg ngaaye mm-hmm. rappeur yi ngaaye dijjee ñoom ñëpp assisté xam nga ñëpp gis ci seen bopp foofu laa doon waxe quoi. Hmm. te boo génnee yeneen koona yi ñoom dañuy jéem a def lu ni mel quoi maanaam ku koy organiser du doon sax rappeur day am amour ci rap. ok di bëgg ah ñëpp ah képp koo xam ne yaa ma doon déglu ci couleur urbaine das réel. on va essayer de rénover léegi dañuy génn ah, dañuy génn seeti artistes yi euh, bu mu naan artistes yi moom euh, comme gars yi contexte bi xam mooy comme euh, dem seeti rappeurs yeeg yooyu mais ñëpp la ñu seet ah essentiel la nga doon artiste ah, nga nekk au niveau de Mékhé comme ni mu leen ko wax on va rénover avec couleur urbaine dañuy génn ak suñu caméra ñëw film la waxtaan ak yow après ma dugal ko sama chaîne YouTube ah ok Teuf Connection TV Sénégal comme ni mu leen ko waxee version bu bees lay doon ah ok Yeah, eey salaam salaam Fidèle forever Teuf Connection di bëgg ñëpp di ziar képp ku nga xam ni bon yaa ngi suivre seen chaîne ah. Teuf Connection TV euh, Sénégal bon ma ma leen wax ngeen xaar ma ngeen xaar ma en plus tamit bu fekkee ne mën ngeen dem abonné ngeen abonné foofu noonu en masse parce que euh, je viens en force ok dina ñëw bu baax dina ñëw bu baax euh, song ak doole ak ay émission yu bees ah, di wax gars yi ñu dem abonné foofu comme ni ma leen ko waxee képp kuy artiste nga contacté ba sama numéro boobu ñu def ak yow émission